الحمد لله القائل ورحمته وسعت كل شيء نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وصفانا محمد صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله العظيم وطاعته فإنه فإنها وصية الله الأولين والآخرين لقوله تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله اخوه الايمان الخطبه في قلب الرحمه mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala ñu ñu dégtal ci alquran karim xamal nañ ni yërmande bi mu yàlla moo gën a yaatu lépp lu mën a doon ñu ngi seet ne amul benn buur bu yow jaam ci dëkk bu dul moom ñu ngi seet ne suñu sama Muhammad alayhi salaatu wa salaam jaam la ndaw la tànn fam la yàlla yàlla fayal ñu ko moom ak saxaaba ak képp ku topp ci jubam boobu borom bi subhanahu wa taala ñu doon suñu bopp si mbokk yi ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla ak topp ko ni mu ñu ko dénkee moom yàlla la si aaya bi mu ni dénk naa leen comme li ma dénkoon ñi nga xamante ni ñooy ñi leen tiitu woon dénkaane boobu mooy law ba ci ñuy mujj ci kaw suuf mooy ani taqullah ñu ragal yàlla dénkaane bi mooy ñuy def ay digale moom yàlla bàyyi ay tereem comme ni ñu ko tere mbokk yi ci yàlla suñu xutbay tey ñu ngi ko fas yéene amal ci jikko ju tedd jikko ju màgg muy jikkoy yërmande arrahma mu yërmande dafa bokk ci melokaanu borom bi subhanahu wa taala moom mooy arrahmaanu rahim yàlla mooy yërëm du ko soob ci kaw suuf waaye yërmandeem gi ci àllaaxira mu ko jagleel ñi nga xamante ni ñooy ñi ko doon gëm ñi ko doon topp fii ci kaw suuf mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ngi wax ci xadis fi saxiixayni ci buxaari wa muslim mu ne qaala rasulullahi sallallahu الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي وسعت كل شيء وسعت عددي yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi keroog bu yàlla sàkkee bindee lépp dafa bind ci kaw arsh ni inna rahmati sama yërmande man yàlla sababat ghadabi moo jiitu sama mer loolu la yàlla bind ci kaw arsh ginnaaw bi mu sàkkee doomu aadama ci yërmande moom yàlla ci la sàkk lii di guddi ak bëccëg mu ni wa min rahmatihi jaala lakum alleyla wannahaara li taskunu fihi wa li tabtagu min fadlihi wa laallakum tashkurun yàlla mu ni ci yërmandeem dañu sàkkal bë guddi ak bëccëg guddi mu def ko ngir lépp lu ñu kër këri ci bëccëg gi ngir fàttaliku ak xéewal guddi gi mu defal ñu ko ngir ñu ciy wàccee suñu coono di ci dam yi moo tax loo mën a kër kër ci kaw suuf ba naan tey jii coono gi ma wàccaale yàlla def na xikma ci guddi boo tëddee ba jóg mu mel ni dara mosu laa dal loolu dafa bokk ci yërmande borom bi subhanahu wa taala ci kaw jaam bi dafa bokk ba tey ci yërmande yàlla subhanahu wa taala ci jaamam yi mu ne bu demee ba suuf si woo comme soxla ndox ngeen dugg ci nawet mu ni bopp yu tëju ndax amul kenn ku am kàttanu wàccee ndox bu dul moom yàlla te bu doon ne dafay xool rek ci ñaawteef yi doomu aadama yi def ci kaw suuf ci di ko bokkaal ci di tuur ay deret di yàlla di tere lépp ci kaw suuf ñu koy def bu fekkoon te foofu lay xool du wàccee dopp ndox ci kaw suuf waaye mu ni wa ma asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir musiba bu leen mën a dal ci kaw suuf ci ñaawteef yi ngeen di def nee na yéen yéen a ko fàggu yéen doomu aadama yi te xam leen ne man yàlla jëlale naa lu bari loo xamante ni mën naa ci tukkil àdduna moo tax ci yërmande moom yàlla nee na ci lay wàccee ndox tooyal suuf si lépp lu ñu jiwoon parce que xamante ne fa la suñu kattan yamoon mooy ci defar suuf si waajal ji yàlla moo ne man may wàccee sama ndox ngir naatal kaw suuf loolu ci kaw yërma dem la koy def moom yàlla subhanahu wa taala moo tax moom yàlla muy wax ci xadis yonente bi alayhi salatu wasalam dañu nettal xadis ni yàlla mu ne jaala allahu rahmata miata juz'in fa amsaka indahu tisaata wa tisina juz'a wa anzala fi l ardi juz'an wahida mu ni moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom yàlla moo jël lii di arrahma mu yërmande mu toll ci téeméeri xaaj mu ni mu jël quatre-vingt-dix-neuf yëpp téye ko jël benn xaaj bi dong ci yërmande benn wàccee ko ci kaw suuf séddale ko mbindeef yëpp nag doomu aadama yi mala yi lépp mu séddale fa benn boobu kese ci yërmande ngay gis mala boo xamante ni muy yërëmee sax malaam moromu malaam nga gis nit koo xam ne amul lu toll noonu ci yërmande ba mu lay yéem nga naan xoolal mala bi ni mu yërëmee doomam ci ngay gis doomu aadama mu yërëm mu am yërmande ba nga xamante ni léegi la muy bëgg a wax sax rangoñam dañ tuur ndax yërmande bi mu ëpp ci moom yërmande kooku benn yërmande bi yàlla wàccee ci kaw suuf la séddale doomu aadama yeeg bindee yeeg lépp ñu si yërmande ci mu ni quatre-vingt-dix-neuf bi nag maa ngi ko téye yowmal xiyaamati ngeen yërëmee ko sama jaam yàlla ñu ci yàlla boole moo tax yàlla di wax ci alquran ba tey mu ni qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dunuba jamian innahu huwa alghafuru rahim ba tey ci yërmande moom yàlla lay xam ne ni ñun doomu aadama yi ci tooñ ko lañ dëkk mu ni yéen sama jaam yi nga xamante ni dem ngeen ba jàpp ni li ngeen fàgg li ngeen def ci ay bàkkaar du mu leen ko jéggal mu ni bu leen xàtti mukk bu leen xat ci yërmande yàlla ci yërmande ndax moom yàlla nee na mooy jéggale bàkkaar yépp yaghfiru dunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim moom yàlla mooy jéggalaakoon bi moom mooy borom yërmande bu yaatu bi mbokk yi ba ci lii di aljanna bi bépp doomu aadama bu gëm yàlla di ñaan ëllëg yawmal qiyaamati mu doon sa wàccuwaay yàlla ci yàlla boole aljanna ci boppam képp ku fay dugg rek ci yërmande yàlla nga fay duggee moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon saxaaba yi bis mu ni lan yadxula ahadukum minkum amaluhul janna mu ne amul kenn ci yéen koo xamante ne ay jëfam moo koy dugal bil aljanna bi mu waxee loolu saxaaba yi ne ko qaalu wala anta ya rasulallah ba ci yow mii yonent bi alayhi salaatu wasalaam qaala mu ni leen wala ana ba ci man mii illa an yadghammadani llahu minhu bi fadlihi wa rahmah mu ne lu dul yàlla muur ma ak ay ngëneelam ak yërmandeem rek ci lay duggee biir aljana ba ci moom alayhi salaatu wasalaam mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa dafa siiwoon fesoon ci moom ci yërmande gi mu daan yëre xale yi ba di faw ak ñoom di nekk ak ñoom saa su nekk bu ko saxaaba yi mosaan laaj danaan man laa yarham laa yarham képp ku dul yërëmaate rek duñ la yërëm yàlla du la yërëm moo tax moom alayhi salaatu wasalaam bis ñëw na fekk doom ji di wax Ibrahim feebar ba dal ci sakratul mawt ci sukuraat moo bi muy faatoo rek bi mu duggee moom alayhi salaatu wasalaam jàkkaarloo moom rek ba di commencé di tuur ay rangoon saxaab bu ñuy wax abdurahman ibnu awf daal di koy xool ni ko wa anta ya rasulallah déet waay déet waay yow yonent bi ci sunuy kàllaama yonent bi alayhi salatu salaam ne ko ya ibnu awf yow abdurahman ibnu awf innaha rahma mu ne rangoo ñii di tuur yéen ma ne la mu ni moom ba tey yonent bi alayhi salatu salaam inna al ayna tadmau wal qalbu yéen mu ni bët de ngeen di gis ni muy xel di ay rangoon fekk boobu xol ba moom mu ngay tiisu xol ba mu ngi tiisu mu ni wala naqulu illa ma yarda rabbuna waaye du ñu génne suñu kàddu mukk ay kàddu yu saayit du ñu def lu dul di nangu ndogalu borom bi subhanahu wa taala boobu dam ñu faatu mu xoolaat ko mu ni ko wa inna firaqaka ya ibrahim la mahzun mu ne ko yow ibrahim doom ji lay waxal doom ji faatu mu ne ko sa dem gii de nekk na dem boo xamante ni ñu ngi koy tiis bu lool kon moom alayhi salaatu wasalaam feeñ na ci hadis bi yërmande gi mu amoon ci xale yi ci njabootam ba ci doom ji di ibrahim bi muy faatu yërmande ba tey yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñi mu nekkaloon ci li ñuy wax ay mbindaan muy anas ibnu malik nettali mu ni moom musul gis kenn ku ëpp yu yërmande yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ni mu daan nekkee ak ñoom ni mu daan dundee ak ñoom fii nag mbokk yi dinañ fi taxaw ndax boo xoolee ci jamono ji ñi ñuy wax mbindaan muy mbinduwaan te anas mi bokkoon ci mbindaanu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy ngay liggéey ñu lay bind bis boo bind bis boo liggéey ñu bindal la ko wàññi la ko weer dee ñu fay jamono jii ngay gis ci lu ci ëpp sax ay élèves la ñuy doon wala ay étudiants di daan seen doole ndax jamono ñu nag xari ngir mën a wuutu seen waajur ci loo xamante ni ñoom war nañ jàpp ne mën nañ koo defar seen bopp ñu daw ci kër yi pour binduwaat nga ciy gis ñoo xamante ni ci jamono yooyu la ñuy profité sax ci jël liggéey yi gën a teg ñu dul jox seen i njaboot ñoom yi ñu jur di ko jël di ko sëf doomu jaamu yooyu nga xamante ni dañoo ñëw rek ngir daan si doole. te sax dafa war a nekk loo xamante ni ni mag ñi daan yaree ëllëg dem kër goo mosaan dugg doon ouvrier di liggéey fekk borom kër gi am ay doom yu nekk waxambaane doon ay élèves keroog yow ouvrier bi. loo ut ay maneen ay doomam looy ñëw ànd ak yow ci liggéey bi wala ngay noppi boo paree ñu fayal ko ñax ko mat sëkk noonu it la ñu waroon ñu nit ñi nga xamante ne dañoo ñëw di mbindaan si ñu jël suñuy doom au lieu que ñu bàyyi leen ñuy nelaw naan ci vacances lañ nekk waaye ñu jàngaleen liggéeyu kër ñu ànd ak doomu jàmbur yooyu noonu ñuy ànd di liggéey loolu dina jur ci ñoom xoluk yërmande xam ne ñii di liggéey si dañuy daan si doole waaye nekk ñoo xamante ne ay esclave mbokk yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa dénkaan mu ni man yali min hadihi albanat shay'a fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min annaar mu ne képp koo xamante ni ndaw ñu jigéen ñooñu jigéen ñooñu moo xam ne ndaan la moo xam sa soxna la moo xam koo xamante ni kull la jox ngay jigéen ñi mu ni nga fexe ba rafetal sa diggante ak ñoom loolu de ëllëg yowmal qiyaamati mun naa nekk sitre mooy satre sa diggante ak lii di safara moom alayhi salaatu wasalaam mu ni xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrukum li ahli mu ni ki gën ci yéen nag laa leen di dénk mooy kan mooy ki nga xamante ne moo gën ci njabootam gën ci sa njaboot mooy di nekk ak ñoom di waxtaan ak ñoom di fexe di def sa kéem kattan ci ñoom waaye nga bañ a doon borom kër boo xamante ni moom njabootam buñ ko xoolee rek seen fit dem waaye su génn ci biti nag mooy bàyyi ñëpp déedéet yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ki gën ci yéen mooy ki gën ci seen njaboot te li gën ci li ngay fàggandiku di ko joxe fa gën fa ngay joxe sa alal fi ci njëkk mooy sa njaboot moo tax moom alayhi salaatu wasalaam mu ne waaye man mii de kenn gënuma ci sama njaboot sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci yërmandeem keroog bi nga xamante ni génne nañ ko màkka fitnaal saxaaba yi rey ñenn ñi dàq leen ñuy nëbbatu yi génn dem ba madinatul munawwara dem fe def fa fukki at ba ñëw ci lu ñuy wax fatxu màkka ànd ak coalition boo xamante ni jëkku nañ ngir fayu keroog saxaa bun naan saad daf ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni ko bis bii tey bisub xare foofu lam defoon ci xol bi mooy fayu tey moom bisub fayu la ba nga gis ñi nekkoon kilifa ci makkatal mukarrama ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam naan ko axun karim ibnu axin karim yow de moom yow ku baax nga doom ku baax nga commencé di ko mocc yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ni saad bis bii du bisub xare bis bi bisub marxama la bisub yërmande la keroog la mu wax moom alayhi salaatu wasalaam ña ñëwoon ci moom daf ne leen izhabu fa antum xulafa dem leen jéggal naa leen ànd ak lañ ko defoon lépp ca at yi nga xamante ne mooy at yu weesu aqulu ma tasmaun astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iri l-muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa l-ghafuru rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وقي قلنا من سنة يا جل عليه الصلاة والسلام suñu xutba ñaareel ba tey ci lii di jikko ju màgg jikko ju tedd muy jikko koy yërmande yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa giñ ci xadis bi mu ni walladi nafsi bi yadi laa tadxulu janna xatta taraaha giñ naa ci nga xamante ni sama bakkat bi ci loxoom la nekk mooy yàlla subhanahu wa taala mu ne du ngeen dugg aljana mu lu dul da ngeen yërëmante keroog ba mu waxee xadis bi saxaaba yi nañu ko kullana rahim ah ñu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñun de jàppan lañ ni ñu am yërmande la mu ni leen innahu laysa bi rahmati laysa bi rahmati ahadikum xaasatuhum nekkul yërmande gu nekk ci yow rek nga téye ko la waaye yërmande gi lim ci nam walakin rahmatal aama mooy yërmande goo xam ne da nga koy yaatal yaatal ko ci kenn koo gis ku ne rek nga ëmbal ko yërmande ëmbal ko cofeel ba tey mbokk yi ci yërmande ki nga xamante ni moo njëkk a yellu ci nga ëmbal ko yërmande mooy ñi la gën a jege te bu ñu waxee ne ñi la gën a jege mooy say wér moo tax borom bi subhanahu wa taala bi ngay wax yërmande bi nga war a amal bi nga war a ëmbal say wér daf ne wax ko doo rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu yàlla dafa digle ñi ñu jaamu ko moom kese te bañ ko bokkaale ak kenn ba mu noppee ci digle boobu daf ni wa bil waalidayni ihsaana mu wéy ba tey moom yàlla subhanahu wa taala di wax ci aaya bi imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waxfid lahuma janaha dhulli min ar-rahm nee na say waajur rafetal gi bi nga war a rafetal ci ñoom dafa war a nag egg ci ba yow du am lenn loo leen di ëmbal lu dul lépp ak yërmande am na nit ki yërmande ak cofeel foofu moom xalaatoo lépp luy ay luy jóge ci yow jëm ci moom waxuma la nag luy jóge ci àll ba ngir dal ci say waajur kon ki nga xamante ne moo war a njëkk ci nga yërëm leer mooy say waajur mu bokk ba tey ci ñi nga xamante ni war nga am ak yërmande jëmale ko ci ñoom alquran tudd ko mooy way dencante yi yàlla mu ni ci biir néegu sëy wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaja li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma inna dalika la ayatin li qawmin yatafakkarun inna fi dalika la ayatin li qawmin yatafakkarun dafa bokk ci kéemtaanu yàlla yi mooy mu boole ñaari nit góor ak jigéen ci biir néegu sëy mooy fi société di tàmbale kéemtaanu ñaari nit ñu bëggante loolu kéemtaan la mbokk yi ñu ànd ci biir néegu sëy loolu kéemtaan la mbokk yi yàlla boole leen ba ba soqe ci ñoom njaboot loolu ay kéemtaan la mbokk yi waaye mu ne kéemtaanu ñoom ñaar ñu nekk lii tax diggante bi mën a yàgg mën a neex nee na ñaar yi ñoo koy ñooy fond fondement yi mooy mawaddatan wa rahma faw cofeel li ci am amour ci ko góor ki comme ci jugu jigéen ki waaye mu ànd ak rahmatan muy yërmande ku góor ki di yërëm jigéen bi waaye ku jigéen bi tamit di bàyyi xel ku góor ki kon ba ci biir néegu sëy borom bi subhanahu wa taala mu ngi ciy dénkaane li nga xamante ni mooy yërmande ba tey ci biir kër gi borom kër gi nga xamante ni keroog di borom bi subhanahu wa taala génne suñu maam aadama ak awa ci biir aljana wàccee leen ci kaw suuf yàlla dafa waxoon yow aadama yow bu bu leen xoolee ba iblis génne leen biir aljana nga wàcc ci kaw suuf yow di nga sonn yow coono googu noonu nag góor di sonn ci biir kër gi di kilifay kër gi moo tax ba yàlla dafa ni nag ah del bàyyi xel nag ñi la wër mu ne yaa ayyuha alladina amanu inna min azwajikum wa awlaadikum aduwan lakum fahdaruhum wa in taafu wa tasfahu wa taxfiru fa inna allaha gafurun rahim mu ne yow kilifa bi yow jullit bi yow koy gëm yàlla yow mi samp kër ma dénk la njaboot xamal ni ci sa njaboot yu góor yi ak yu jigéen yi ak ci sa soxna yi am na ñoo xamante ni aduwan lakum seenuk noonu la du noonu koy nooy defanteel waaye ñoo xamante ni la boo bàyyiwul àq ba dox sa diggante ak ñoom ci di leen orienté ci li leen war ñu koy war a def foofu lay waxe àddugul la mu ne nag ñoom nekkuñ ñoo xamante ni da nga naan leen da ngeen def lii par force da ngay maanaam di jóg di di Iran ak Iran ak ñoom nee na léeg-léeg nga ñëw ci sa njaboot bi fekk ci loo xamante ni lii dul yàlla digle waaye am na noo koy dindee loolu dootul dañ dafay sax moo tax yàlla mu ni jël jëlaleel nag léeg-léeg del jëlale léeg-léeg mu ni nga jéggale mu ni nga jéggale léeg-léeg dina gis loo xamante ni bu loo xamante ni da nga ko war a jëlale nag lii loo war a wax la mu ni nga wax ci te jéggale nag da nga xam ni moom yàlla de yàlla de buur la boo xam te ne muy jéggale la buur la boo xamante ni bu yërmande la mbokk yi ci yàlla lii di jikko yi yërmande jikko la joo xamante ni ñu ñëw yàlla subhanahu wa taala wataare ko ci diin njaboot ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wasaare ko ci suñu pénc yi ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wasaare ko ci àdduna bi yëpp ndax mooy jikko joo xamante ne mën naa defar àdduna mën naa defar ak pénc mën naa defar société bi lëm yàlla yàlla defal ñu min alladina yastabiuna alqawla fa yattabiuna ahsana ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا إلى صراطك السبيل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام مع المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله Thank you.